asalaamaaleykum wa rahmatullah gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax defe naa comme niñ ko xamee ñun ñëpp suba mooy le vingt cinq février deux mille vingt quatre waroon nekk jouru élection maanaam suba la ñu waroon xam ku ñuy tab ci Sénégal pour mu jiite ñu ci juróomi at yi ñëw ndax donte peut-être am nañu confiance que. képp ku mën a jël réew mi dinga am ñaareelu mandat waaye gëmoon nañ ne suba moom incha allahu rabbi euh, mënoon nañoo tabb suñu président bu bees loolu moo waral euh, njiitu opposition bi yëpp ñu ngi woote déjà ndaje Dakar foofu ci Dakar euh, je pense que yéen ñëpp de jot ngeen message bi waaye dinaa leen ko gën a leeralal donc euh, mi ngi nekk euh, gars yi nee nañu rest in peace Sall euh, deuil de la démocratie sénégalaise voilà front pour les candidats de l'élection présidentielle ñu ngi joxe rendez-vous terrain xaar yàlla terrain xaar yàlla la opposition bi joxe rendez-vous suba incha allahu rabbi pour fësal jëmmal bisu élection vingt cinq février deux mille vingt quatre bii ñu nekk voilà léegi na gars yi il faut képp koo xam ne man nga ko am nga ko te nga man koo def nga fexe lépp loo man ñëpp daje terrain xaar yàlla pour won Macky Sall ne bëggatuñ ko ci réew mi te élection la ñu wax te léegi léegi léegi ku man sa moroom daan ginnaaw loolu nag ñu ngi ñëw aussi ñun aussi ci Amérique ñu ngi woote suba marche à la cent seize cent seize entre sept ak Lenox entre septième avenue ak Lenox ci kanamu place su Mafal ñu ngi fay woote marche suba ndaje ñun ñëpp jouru élection à quatorze heures heure de New York suba cent seize quatorze heures heure de New York voilà ñu leen di wax yéen ñëpp rek nañu daje pour jëmmal fësal indi lumière ci jour boobu dina am nag ay surprise incha allahu rabbi dina am ay surprise waaye comme niñ leen ko waxee incha allah suba terrain xaar yàlla ci Sénégal ba pare fii ci Amérique aussi ñu ngi koy defee cent seize donc ñu ngi woo ñëpp di invité ñëpp incha allahu rabbi suba à la ginnaaw loolu nag gars yi ma dalal seen xel ndax ñun ñëpp xam nañu Macky Sall li tax mu nekk fi ba léegi dinaa leen ko wax Macky Sall ragal dem donc yaakaar ne ay amnistie ay nitam ay tàppale ay setal bàyyi ginnaawam waaye je vais vous dire que sénégalais yi Euh, nañu jàpp fi ñu jàpp rek incha allahu rabbi te continuer combat bi te xam ne la victoire est très proche Macky Sall moom ci boppam moo la xam ne amatul fu mu jafandu Macky sàll pare na te moom moo leen ko gën a xam gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu